mbokki Dakar Actu fi ngeen di gis ni mom moy Fissel Mbadane ñu ngi ci axe bi nga xamantene ni mom mo joge jóge jëm fi nga xamne ni mom moy ndangal ma ba ndol-ndol fi taxa ñew nak mom moy yoon bo xamantene ni kenn muñta dem kenn muñta dik rek 28 village la wuñ ci ndangal ma wuñ ci ndol-ndol population bi nag xamatuñu fu ñu jëm ñu ngi yuuxu loolu moo tax tey ñu woo fi taskatu xabaar yi wax nañu nag ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy seen i njiit yi nekk fii ci gox bi la ñu nekk seen i askan ñoo bëgg a wax ak ñoom ñu dem. commune Fissel APR la bokk Ndondol ci APR la bokk Ndangalma dëkku Mor ngoom ci APR la bokk euh, ran-ran boobu nga xam ne nag depuis quatre-vingt cinq sax lañu mën a wax ba tey jii ñu def ko ran ba tey jii ñu naan tey suba tey subda ñuy dund yaakaar te dara mënu fee sotti moo tax tey ñu ne nañu jog nag ngir kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu nguur gi di doxal actuellement ñu geestu askan bi ci wàllu jafe-jafe tali yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel bokk na ci ñu doon jaar dem bu tuuba ci màggal mënatul ne bokk na ci ñi nga xam ne dañ doon dem boo tiwaawoon ci gàmm mënatul am ndax li ko firndeel mooy ay pax yu xóot yoo xam ne oto bu ne dagaj dootoo génn da ngay am problème ñu bëgg a interpeller nag ministre de transport mu yey ci yab bi ak nu mu gën a gaawe ndax nag vraiment ñun ay ndaw lañu am na nañu euh, sañ-sañ nag wax lu ñu metti ci suñu euh, ñetti communes yi muy bokk ci point boobu mooy tali bi ñu war koo godroné ñu bëggoon nag bu fekkee mën na nekk ngeeñan euh, caajaay bu fekkoon ne mën nañu ko boole ñu boole wàll ko ngir yàlla war a ndax am na benn soog boo xam ne amoon nañu foofu boo jegee ficelle ñëw ba mbuqum foofu mooy jéggi siraat jéggi siraat boobu am na jigen bu fa damone ñaari saret yu amone ne ñoo jaar ci yoon yu am ndox yi ndax finalement ñi am tol, yi ci nawet bi dañuy gas sen tol yi ci rara bi lañuy obligé di jaar fofu yit kenn mënu fa jaar moto bu fa jaar da ngay fey lolu nag moñu jaaxal dañu ne sax dembu dañu ne est-ce que ñun ñoo def ben wacce kamer pour talibi bi pour ñu mon ko defar ndax dañu yaakaar ne am na rab bu koy tere ndax chaque année. ñu ñëw natt balaa ñuy natt nag dañuy am euh, euh, dañuy bëgg a def politique chaque élection ñu indi ñuy nat ñu nat euh, wax a wax wax wax nata nata nat bu élection passé ñu fotteel leen surtout APR depuis 2012 gisuñu dara gisuñu suñu bopp man APRiste la pire et dire mais nag du teye nag ma wax leen ne nañu def le tout ngir population bi. loolu moom ñetti communes yi déggoon nañ ci nom de collectif suñu talli am na benn plateforme bu ñu ubbi nom de collectif suñu tali lañ ko tudde man bokk naa ci comité de pilotage bi cinq personnes par commune man mi bokk naa ci cinq personnes commune Fissel ñu ne lii wax buñ ko waxee te defuñu ci yeyuñu ci yàb bi bu élection ñëwaat APR mënut waratu la ñëw sax di taxawalu fii dañuy xool yi beneen parti boo xam ne bu bu gañee mën ñoo defaral suñu tali bi parce que dañoo maar dañoo maar ñun nag ay ndaw lañu am nañu ay waajur te fu ñu leen jaarloo ñu jaar fa. keroog maa ngi doon bind le ministre Oumar Youm benn message ma ne ko euh, dañoo bëgg ñu may ñu en attendant ay lat ay ay latrit ay ay camion latrit ñu juk ko ci jéggi siraat bu foofu. ñu mën fee jaar ànd tana ñuy defar tali bi waa commune nu Fissel ak commune nu ma itam ñun itam comme Mor Ngom nekkoon na ministre de transports nekk fi boo wàcc sax gam mu ñëwoon fii gamu Baye daam loo mu ne tali bi dinañ ko defar te gisuñu ci dara boo nii mu wàcce keneen kii ñëwaat euh, ministre Omar Youm bu bu xaw ma suba lay wàcc xaw ma ginnaaw suba waaye yàlla bu mu wàcc waaye taw tali bi ko ngir yàlla war a sulu ndax ay doomu jegem lañu moom doomu jegem la na geestu doomu jegem yi. waaw CM boobu itam comme concernant sept chefs de village euh, ñu daje woon jeunes yeeg pères yeeg mag yi ak ndaw ñi ak maire yi sax ñu dajale seeni i as tuut ndax la ko waral mooy as tuut boobu dañoo bindoon yobu Euh, fale inspection de travail ci éducation inspection de éducation ñu wax ne état léegi defalatu leen lépp da ngeen ay fexe ngeen tabax ñaari salle de classe am site tamit euh, yàlla dogal na itam euh, waa maire yi jox nañu site cinq hectare waa dëkk bi it góorgóorlu nañu ba muul cinq tonnes ba muul nañ ko ba pare ñun itam ñu bëgg a laaj appel en tant que sept chefs de village Euh, ci ndaw ñi nga xam ne dañuy jóge fu sori ñii di kilomètres la ñuy dox dem commune Fissel CM boobu ngir yàlla wa rasul ministre de éducation mu ñëw gestu commune Fissel quartier Mbafay marché ndax li mu boot bari na trop bari na trop te élèves yi mënuñoo wàcc dessert bëgg a jang seen leçon tax na ñu bëri bàyyi jàng perte jàngatuñu te vraiment loolu bëgg nañu ñu ñu ñu jàppale ñu ci bu baax a baax. dañoo bëgg a am CM ndax euh, sept chefs de village boo xoolee euh, euh, sept chefs de village boobu école bu ne au moins am na cinq classes wala quatre classes mbaa fay fi mu nekk am na cycle complet te dëkk bu amee cycle complet droit la nag mu am bu dee classe du sax mu am ko kon ngir yàlla war a sulu ministre de l'éducation ak président Macky Sall na jàppale mbaa ci CM. bi sonn lañ def noonu rek nawet dañuy sonn bu nawet bi ñëwee nag da ngay gën a am problème clients yi ñëpp ay am problème dañuy teggi def luñ ne oto yi chaque jour si paan lañ dëkk réparé nañ ba sonn ku ñu ci dimbale nag dinañu jël fii ba ndàngal ma télé bi yàgg na ay ati at kenn mënu koo defar dañoo bëgg nag ngeen dimbale ñu si ngir yàlla ak yonente bi rek ngeen jàpp ci jàppale clients yi jàppale ñëpp jàppale askan wi il faut voyage bi mën a yóbbu population bi ñëpp mën a kontaan télé bi moom fi ay kàmb kese la ay paxi kese ay at mu ngi fi kenn mënu laa wax ñaata at la fi nekk diggante fii bu addu ndàngal ma caajaay bu addu ndàngal ma tali bi normal nawet bi gis nga ko si la gën a rappaajoo nga ko ni mu def rappaajoo la def amoo fenn foo jaar da ngay teggi dugub bi si àll bi yëpp jaar nañ gerte jaambur yi kenn amul noo def day yàq suñu oto yi chaque jour nga jënd ñaari pono ñett chaque ñu dëmm ci tali bi waaw amuñu kenn nag ku dul président Macky Sall nga jàpp ci dimbali ñu defaral ñu suñu tali bi tali rek lañu amuñu leneen ma ngi len di ñaan ngeen seen ngeen xol suñu yoon bi yoon bi yakuna na accident yi bari na to war na man ñun ñu fi nek ñee leen gën ñi yor auto bi ndax gorom sa mbok du jaar fi giro do mëna dem do ko mëna bay fo da ngay japp bu muy gën loolu war na ma ne am na di wax yeb dafa am to kon gis ngeen yoon gisal ngeen ka seen bot kon lima len di wax war war ngeen ko gem man duma wax waxu chaan manuma wax ci bor nit sax boy wax ah waxu kon bu ma leen waxee lii dañuy des ma jaal te jàqal nañu yàq nañu su tool yi mënuñu wéer gis nga yëpp tool yëpp dañoo yàqu kon maa ngi leen di jaajëf nag lu ngeen ci mën nag jàppale ñu wayoon bi jekk def leen ko li ngeen ci mën wax bu mu jekk def leen ko. Ya, ministère yi. Ah. ak population gouvernement bi. wax dëgg mën nañu dañoo ci war a jàpp jàppale ñu. ñu ngi leen di ñaan nag ci kattanu yàlla ak sëñ bi ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale ñu yéen ñi population bi ak ministère bi ak gouvernement bi lima len wax wi dafa am aw len yoon bi dem don dool ba gis ndax di ngeen meuna jall amna fa ci ñaari guuy ya, ak sama tool bobu ci bull bi jaar len fofu bo xam ndax di ngeen meuna jall ana xanaa jaaxle rek jaaxle rek kirti kirti ci yoon yi rek bu de mon nañu ñak gaaway ak mon nañu ñak mo barki sama maire bi fi la ki fi lañuy ramé auto bu bu ba fay gi ñoo jall sax dafa feebaroon rek magat rek magat moko japp ndax du kii mom dafa magat ndax temer atam bi tegal kon ñak yéen ñi fi ñëw gisaat ngeen seen bopp gis ngeen gisal ngeen seen bopp kon ñu mën lu ñu leen ci wax lu ngeen ci mën a gis yéen a ko mën a gisandoo ñun dégg nga.